wiitaay wa dende kooru mu jëm dellu xamal la la wara tey maa ngi jëm ci kon jël dellu xamal la nga waral arab ya ñëw di ay dëkk mag kon moom réew ndox yomb faa looloo waral gannaaw loole yonant bi wa rafaxnaa laka zikrak moo tax in yansurkum allahu fala gaaliba lakum ndeysaan nañu bëggante nañu jàppante dama waxoon ca sama vidéo ni yàlla nee na ngeen wattul ko ñett yi mooy der ak dereet yi ak dërëm yi nañu moytu deru gor yi nañu moytu dereetu gor yi nañu moytu dërëmu gor dana jooy ngir jaaxle lay naan fu may jëlee lu faj tey ak mera Chérif a bokk ak maam Moussa Paye billah Thank मां जुतो ابنة النذور لا إله إلا أنا ولا تكلن أمري بخير كثيرتي لا naka waay waaw waaw Cheikh Tidiane rajaai wa xawsi min ilaahi wasilati xitaamu nizaami وقايتنا التجار من كل شوبة وكما استكي عند الله زيارة ويدفعني سلقشين انتباعي كرنك دي لخوايا الله كنا وينانا بخير salaam mu ne lii su ma ko amul wa ma kuntu arjuha min allahi wahdahu wa in lam analfiha ya mararata عيشتي وعدت وأنت الوعد عندك الصادق إجابة داعي في الكرام بسمتي آمين na ñëpp wax amiin amiin ilaa yufaful walidina zunuba amiin كذلك يا رحمن كل المسيقة آمين كذلك إخواني إلى ومن ينتمي ربي إلى خير منه وأزكى الصلاة الله ثم سلامي وحي أمين آمين على خير قرق الله من خير سنيتي ما ليالي ولا خابي ما ذر شارك وما كان Não. No

سبين آل من هدى waa kër yonent bi bi muhammadin oli bitihi bi maani jaa hum nayhima ستين عالم هدى بمحمد العبدي وبقالها هم نيهما سبتين أعلى من هدى أنا واكر ينتبي وبسعبه والتابعين لهم فهم ساداتنا عجبا قد سات لهن يدات تلا الناس من يار لنا وقناجمها يما لم يما كنت تلا الناس من صلى الله عليه وسلم ربي قضيت فرضيت بالقضاء بالقضاء خرما تشاف حلمك يدا في غديت فلدي ما تشاف حلمك تشابهكم كوننا سجبر ربي خديت فربيت بالغدا بالغدا ما تشافح ما سيدا بقيت بيني خديت فربيت بالغدا ما تشافحكم كوننا थ शाम Sénégal ji ni bi jaay Serigne Mansour borom daara yi dem na Sénégal ilaha illallah nañ leen jaamu di jaamu ku jaamu perte nga su dee doon jaas waa Makka am chance waaye ilaha illallah nañ leen jaamu jaamu ku jaamuwul mu kamada mooy dogal waaye tàccu leen waay mbokk yi ngeen baal mel ni xale bi jóge fii sànq dafa wax ci violence bi ñuy def jëmale ko ci jigéen ñi ay ñu nit suñu tem moo nekkoon li yàlla am muy doomu aadama mi ngi fooyee boppam te dañu jóg joxante loxo fekk jiitu na démb muy doomu daara yépp incha allah rabbi fas yéene def seen contribution mooy lu ñu mun pour seen dëkk dox incha allah daañu ko def a ñuy xamal mag ñi toog diko xamal sëtu rasul yi ni dox bobu ak wax bobu ak taxaway bobu premier khalifa yonent bi dessu ci ginnaw babakar la yalla taxaw dañu ko def daaw mu metti lol ndekete amna observation bi mu woñu bureau mom jamono yi ni ñu mbir mi nu ñu wax ko Matar Thiam coordonnateur am lu mu ko wax mu ni ko dem leen ngeen toog mënuma jël lépp mais li ci ëpp gàlloo naa ko noonu nga wuññee suñu njàqare ba ñu mun a taxaw kontaan tey dama foogoon wallahi oustaz heure bii pour man damay nelaw bàyyi mbokk yi kii sànq dama doon mënatuma woon dara mais yal na la yàlla taxaw ak képp koo xam ne taxawu na bis bii jàpp ci soxna Xadi Sàll lañuy wax ci jigéen ñi mu dëkk ba maris mais mën lu kenn mënul mu ni man bu pàkk amoon yaraax lu mu mën a jar ma dëkk ko dëkk dëkk fi ma jënd ko dëkk fi ndax seen doxalin daaw laa leen xam mais dootuma leen bàyyi jërëjëf euh, mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp képp ku fi teew di la ziara di jiital ci nuyoo yi suñu sang yi di kontaan seen teewaay fii ci commune Hann Bel-Air ñi ngi nuyu bu baax a baax suñu magu dëkk yi suñu kilifa yi di imam oustaz Mor Deme di notable yi di nuyu bu baax a baax délégation bi ma àndal muy conseil municipal di nuyu dëkkandoo yi di nuyu suñu jigéen ñi euh, ñun nag suñu kàddu daanaka du bari tey li tax ma du lu bare jotaay bee tax euh, Cheikh Omar yow ak équipe bi nga àndal yépp sans exception dañ leen di félicité di leen félicité mais di leen wax ne am nañu mbégte am nañu mbégte ci son et lumière bi nga xam ne suñu borom ci kattanam def nañu fekkee ko yàlla nañu fekkee édition déwén incha allah euh, édition bi li tax ñu leen di félicité. Moi d'abord format parce que nous, nous bu ñu son et lumière effectivement xam nga mooy là. mais c'est surtout les messages messages que nga xam ne moom parce que nous sommes d'abord des éducateurs sentir nañ ko ci formation euh, édition ren bi sentir nañ ko ci message que nga xam ne mais nous qui surtout nous def benn accent sur

moy premier ak première attention bi nga xamné jël nañ ko benen bi nga xamné également gis nañ ko moy ñi nga xamné ño ñoo li lii ñi ko sanc mooy suñu bayyi lépp yéen la ndaxte mbir mi ay génération bi ngeen encadré xalé yi imam teg ñu ci yor orienté leen ci yor bi nga xamné moy yoonu dëkk loro waral suñu sang yi ñëw teew fekkee jotaay bi donc yeen aussi mën na ne fu édition yu melni amé dañuy jàpp né rek hommage boo xamante yeen yéen nañ leen kay ram parce que ci yeen la tambalé yeena taxawal daayir xadra bi yeena taxawal daayira fi diko dundal ba yalla dogal tay seeni doom yi seeni sët yi ñëw fi manam di leen delloo jukkal muy lo xamante ne également fierté la pour commune Hann benen élément bi nga xamné ci laa yok moy liguey bi nga xamné mom la doon wax Cheikh Oumar mané que c'est un programme de Hann motax ki nga xamné moy mooy marraine bi di madame khadissal Sall dañ lay sant di la gërëm yow tamit ci ni nga ko dégg nañu kàddu yi dégg nañu message muy lo xamante ne dafa rafet bu ñu nee édition wu la fañ koy organiser la muy mobiliser ci nit.

di fa wane xam-xam donc loolu aussi bokk na ci li nga xam